mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon a déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon a déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou Mbacké yàlla fi yàgg tëwér ñu ngi sant mbokk taalibe yëpp di jiital sunu nuyoo Serigne Saliou ndigal cuun mu sëñ Béthio ah nag sëriñ bi dañoo am ay kàddu cant ndax fii ñu dugg képp koo xam ne am nga loo xam ci sëñ Béthio wala képp koo xam ne am na loo xam ci sëriñ Béthio dimbali na la ci jëmmam boo dugg see ci barab bii dina am feneen fu mu la yóbbu loolu nag sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo dimbali ba delloo suñu fii amel nañ ko cant koo xam ne duñ ko seedeel kurul sëriñ Touba ndax barab bii kat di Matlabul Fawzayni jàpp naa ni képp koo xam ne ab murid nga am nga loo ci jot xam ngir Serigne Saliou lim nu ci wax li mu ci wax nañu sëriñ Touba jaamu na fi yàlla lu ci lu bari di barab boo xam ne Serigne Saliou yàgg na fee dalal Serigne ci kon ñun cantaakoon suñu demee ba am ndimbal sëriñ Cheikh Mbacke dugalaat nu fi war na noo sant ba dam loolu nag sëñ Sall wax na ko léegi li mu waxee mooy Serigne bi ñëw nañu demoonte li nga xamante ne moo doon mbaar mu njëkk mi fi nekkoon fas yéen yéene fay def beneen mbaar meneen mbaar mi ñu fiy def nag. loolu sëriñ bi mooy wax ni mu ko bëggee technicien yi nga xam ne moo ci war yëpp sëriñ bi uddal ba dox nañ ko ba jàpp naa ne lépp dina sotti te di ngeen ko gisal seen ñun nag fi ñu mën a waxee mooy ñu mbokk taalibe yi ndax lii kat jëf la joo xam ni war nañ cee jaare wane ni sëñ Béthio ñun jàngal nañu lan mooy liggéeyal sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi bég lool ci jokkoo ak yéen ci barab bu tedd bii barabu sëriñ Touba bii di jëkkee ci samay kàddu nag di sant sëriñ Cheikh moom sëriñ Sall di ko sant tey ñaan mu yàgg fi te di ko sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngir lan ngir tànn bi mu ñu tànn ci biir murit yi ci biir taalibe bi ngir di nu yeesalloo barab la bii nga xam ne day barabu sëriñ Sall di barab bu Serigne Touba jaamoo suñu boroom lu bari lu yàgg ñëpp xam ko mu indi na fi dina fi liggéey loolu nag danoo mayaat rek ñu xam ni nun day lu nu sant sëriñ Saliou lu nu sant suñu jàmbaar ja di Serigne Bek luñ ko sant sant rek doy ndax wax dëgg yàlla day mel ni boobaak léegi mel na ni nag liggéey bu mel ni liggéey bu amee solo nii liggéey bu rëyee ni mel na ni boobaak léegi ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu bi ñu ngi ciy dog bi jot ngir barab bi day li mu wund lépp li mu ëmb dafa bari kon ñu ngi sant Serigne Cheikh di ñaan mu yàgg fi te waaye mën a ne maa ngi koy yëgal jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi bitim réew mbooloom bitim bitim réew ni liggéey bi warta laal suuf ndax sëriñ bi ñeewantal gum ñu ñeewantal tax na liggéey bi jëmoon ci daara yi bu mel ni daf koo taxawal waaye démb nee ko dimbali ñu ba suukar si ak kafe gi dimbali ba loolu moom Mbacke eh, na bàyyee ko rek mu yeggale ba ba ko ba ba kon liggéey bi warta taxawaan hmm. dañ ko war a gaaw def ngir mën a jëlaat liggéey yi nga xam ne ñu ko téye